waa Thiès a ngi noonu ndeysaan ñu ngi def seen débat de Toubacouta ci suñ doole njool sana bës joraan ndeysaan waa Thiès a ngi noonu ñu ngi def seen débat de bi si digg géew bi ndeysaan xale yaa ngi noonu bu Thiès baa ngi noonu ñu ngi def seen débat de ñu gis nga ñu ngi leen koy sottil ndeysaan yaa nga laal saafara si ndeysaan njool bu sana l'infatigable njool bu sana Touba Gouta sil doole bul jordan gis nga ay waay ñu nga yëngal ay waa Cees a nga yóbbu fitu yi ay nga yëngal ndeysaan nee ñoom la ay waa Cees a ngi noonu daw nañ daw nañ sana ay ñu